àddina ku leen ni jaaxlewul waxul dëgg mu ni ku leen ni waxul dëgg ñépp a jaaxle la ko dale fan la ko dalee ca penku ba ca sow ku jaaxlewul amul sëriñ Seex Tijaan Si Al Maktoum kon ñun ñi am yonent bi ñun ñi am yonent bi te mu di yiwu yàlla lu nuy defati rek nan ko def ci kàddaru yi woowule sëriñ Seex Tijaan Si Al Maktoum wala nabluwannakum bi shay'in min al xawf maa leen jox kilifa gu kenn amul jox leen may gu kenn amul Uh-huh. danaa natt seen yitte ci bu ragal amee nu ngeen di mel. nu ngeen di mel. jamono dana ñëw loo daan bay mu dundal la at boo ko bayee mu dundal la weer. waaw. Serigne Cheikh Tidiane Sall Maktoum. nga ni jamono dana ñëw. jamono dana ñëw lu jàngoro tuuti tuuti faat nit yàlla ko yàlla teg ca lan. nee na nag mën a du kenn. bu keroogee ma seet ndax àgg na ci xol yi wala àggul ci xol yi bu àggul ci xol yi ma teggi ko. bu àggee ci xol yi nag. boo àggee ci xol yi nag ma bàyyi leen ak seen bopp ba xam fu ñu koy faje ji wa bashiri sabirin aha aha sëriñ Cheikh Tidiane ma Maktoum nga ne am nañu am ñu denc seen xol ba nattu du caag sëriñ Cheikh Tidiane ma Maktoum kon lan nga ñuy digal ci jamono ji ak sax jamono yeneen yu di ñëw di ci boole ñaan di ormal sunu kilifa yi. di lan. di ormal sunu kilifa yi. El Hadj Ndiaye yaa ngi dégg. di ormal sunu kilifa yi. lu nu war a teewee ci wàllu yonent bi ñu teewe ko. bu nu dee régler problème mu njaboot. régler ko ci cadre yiwu yàlla wi yonent bi nekk. Serigne Cheikh Tidiane Sall àddina. bu nu dee rekle ayu àdduna ñu rekle ko ci cadre yiwu yàlla wi yonent bi nekk bu ñu paree ñu boole ci lan booleeg ñaanam kenn ku ne ba ngay dem am na loo bàyyik nit ñi am na ñoo xam ne bomb la ñu defar bàyyi ko nit ñi waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy dem lan la ñu bàyyeel yonent bi ba muy dem nag daf ni ñaan gaangoog fu ngeen jàq ñaan leen seen borom ñaan leen seen borom jërëjëf maam Seex yal na yàlla dolli ay leeram